s'il te plaît doo ñëwaat fii ci kàttanu suñu borom waaw kay liggéeyoo euh, ni ñu koy waxatee léegi léegi dañuy ñëw d'abord ci Walf Quotidien journal bi xëy ca fajar ba pare di yeete euh, ñëw nag fël ak ñun fu fu am solo ah ci candidature locale yi ñi nga xam ne tey jii euh, ñoom ñoo nekk jamono ji samp seenu ndënd ngir élection locale yi nee nañu am na benn menance buy peser ci seenu ndodd lan la Alioune Sow. oui euh, effectivement mais ce Charles Gaye kii là. Gaye kii la Charles Gaye kii il est bon. il est bon. je je je je xaw ma nu mu mel. mais je le lis. il est timide et il est il est timide. Ah, il est effacé. et effacé. ça euh, rencontre dans les couloirs tu dis pas que euh, c'est lui. xaw a sew tuuti mais il est effacé. même sax man mii buy wax ak man sax day tooñ. Euh, mais il est effacé day sëgg ne yow. ah bind bi baax na de. il est il est day wax mu mel ni man maay wax. wax mu ne wu ko waaye bu bindee rek. Mhm. ah oui kon de ñun dinañ ko waxal parce que vraiment li muy bind nii moom je me sens à 100% dedans quoi quand il ah écrit mais booy bi moom li muy bind. rajo Walf journal Walf Quotidien Salif Ka sama xarit et puis ak seen patron euh, certainement c'est sous la conduite de leur patron Seyni Diop ah ouais. il doit être certainement ouais, c'est, hein, c'est, hein, il est hein, bon il est bon ah man day wax dëgg yàlla donc Ibrahima hmm? Ibrahima Anne aussi Ibrahima Anne kii euh, euh, mu ngi leen di manager bu émission Pencco nu mu tudd Mame Biram Wacc aussi c'est d'une intelligence kii euh, très très non seulement raffinée mais très froide. wala dañ ma neex parce que xam nga parce que man gis nga man bu ma gisee autant nii laa mel na xëy man su ma gisee lu lu ma mm. dama ci après mais su ma gisee lu ma naqari dama koy def ba nit ñi mën nañu ci mere mais tant mm. pis c'est comme ça mm. quand je suis content je suis content et eh je suis content de Charlie Gaye kii Diène yàlla na la yàlla sàmm jeune homme yàlla na la gën yokk ci li ngay def ah, je voulais dire dëgg la maa ngi toog nañ yaa ngi noonu. non lii nii en fait c'est c'est c'est le c'est le titre d'hier la botte secrète de Macky ça c'est le titre d'hier euh, Tapenda tu nous sors là euh, titre d'aujourd'hui candidature au local les menaces qui pèsent sur les leaders ah, loolu mooy titre Walf Quotidien d'aujourd'hui de ce mercredi 15 euh, septembre voilà on y va pour le décryptage Aliou on soit pragmatique parce qu'il nous reste deux rubriques ñaari angle ñaari angle et musique ñaari angle est-ce que question là vu ce que Walf Quotidien j'aimerais bien que ñu defal ma une une bi Walf Walf Quotidien def euh, mooy euh, euh, dañu ne menaces yi nga xam ne moom moo nekk ci kaw leader leader euh, d'opposition yi nga xam ne dañu euh, ce sont des euh, présumés candidats aux élections présidentielles de 2024 est-ce que ñoom ñeme nañu dem dugg ci élections locales yi bokk mhm. ci mhm. pour gagner ay communes yi nga xam ne moom lañ leen di dañu réputé ni foofu la ñu soxe ko mhm. le cas de Ousmane Sonko à Ziguinchor en Casamance la la la la zone sud et eh bien le cas de de de de Khalifa Sall à Dakar est-ce que dina am capacité mën na am na courage et cetera ñëw affaire bi wala day yónni euh, quelqu'un comme Barthélémy Diaz pour mu ñëwaat ci élection communale pour mu jiite mairie de Dakar euh, pour le cas et puis aussi il y a Grand Yoff nga xam ne foofu la Khalifa Sall di soxe euh, comment ils vont faire avec Madiop Diop ça va être très compliqué et puis il y a d'autres zones aussi est-ce que yenn leaders yi Sénégal yi nga ne dañu war a candidat aux élections présidentielles je pense à Cheikh Bamba nga ne éventuellement peut-être de de Saint-Louis ah est que bu ko récupéré wul nan la war a xalaatee naan day nekkat candidat à une élection présidentielle et puis d'autres aussi am na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi fii peut-être que sama xel ñëwul noonu si ñoom day ay leader d'opposition yoo xam ne wax dëgg yàlla dañu ne ñoom il faut que ñu nekk euh, euh, candidat mais sa leur pose problème parce que dañuy xaw a tiit bu ñu buñ ñu bu ñu ko réussirul bu ñu demee ba ñu dumal leen foofu nan la ñu nar a def est-ce que euh, ki ki réussir aussi comment ça va se passer ça Abdoul Mbaye aussi qui mm. qui normalement Abdoul Mbaye qui est censé avoir une à benn envergure nationale qu'est-ce qu'il pourrait faire Abdoul mbay ci fan la mën a dem pour nekk fa pour wane pour peese boppam wan ne au moins Sénégal am na béréb boo xam ne am na lu mu fay jàll qu'est-ce qu'il va faire envergure nationale parce que finalement quand on peut pas gérer gox benn gox bu soli regardez euh, euh, bon Macky Sall gis ngeen téye na Fatick avant muy nekk muy nekk maire euh, kii aussi nu mu tudd Euh, l'autre l'autre président de la république euh, nu mu tudd euh, kii bon c'est vrai que Abdoulaye Wade musul nekk musul musul nekk maire te nekk nekk na aussi président de la république est-ce que ça veut dire quelque chose est-ce que ça veut dire vraiment quelque chose le fait que boo nekkul béréb rek boo nekkul maire de commune rek wala maire de ville amuloo chance pour nekk maire pour amuloo chance nekk président de la république pour gagner président président une présidentielle ça va ça c'est ñi ñi ngi toog di xalaat nekk ak nit yaa ngi tiit xam ne wóoluñu seen bopp mm-hmm. qu'est-ce qu'ils vont am na ñoo xam ne sax ils se cachent derrière une coalition. pour euh, euh, éventuellement espérer. gagner quelque chose. moi je pense que na ñoo xam ne bokk nañu ñoom coalition xamuñ ne sax ñooñu dañu bëgg a ci ñoom parce que dee nañ politiquement. mais est-ce que est-ce que question bi. Mhm. principalement mooy est-ce que bu fekkee ni yow par exemple munoo euh, capable am benn kii doole doo benn assise ci benn béréb muy Kaolack par exemple quelqu'un qui va être aux élections présidentielles maire foofu d'abord avant muy muy muy muy muy xalaat nekk candidat à une élection présidentielle est-ce que envergure euh, euh, euh, warul commencer à base bi warul commencer ci fi nga xam ne moom la réputé ni foofu la foofu la foofu mhm. que nag quoi qu'on puisse dire moom aussi mhm. am na ku ci nekk am na fooy représente d'ailleurs sax da ngay gis benn région mhm. loolu je pense que fort la boo xam ne Macky Sall boo jëlee le cas de c'est pareil. Mm-hmm. moo tax ñuy poser question le cas de euh, aussi. Euh, Kaffrine Kaffrine aussi y' a y' a y' a y' a. Euh, y' a Kaolack également y' a y' a Mimi Touré qui en veut mm-hmm. certainement y' a d' de Benno Bokk Yaakaar mais mais Thiès moom laa doon seetaan mais Idrissa Seck est-ce que est-ce que Idrissa Seck ni dina nekk candidat pour récupérer pour récupérer Thiès wane moom Talla Sylla bi mu joxoon même bu fekkee ne sax dafay daf koy daf koy dénka dénkaane après mais au moins mu wanewaat boppam ni am na assise véritablement à Thiès xam nga kat yu bari ñëw nañ fa léegi non non mm-hmm. ci bi mm-hmm. Mm-hmm. par rapport ak euh, kii bi euh, sama xel dafa dem ci kenn mali Gakou oh purée bravo euh, bravo Cheikh Tidiane Malick mu nekk doomu banlieue bi waaw nekk doomu géejawaay Malick Gakou tey jii euh, club boobu ngay gis GFC bu loon moom tey GFC du am c'est lui euh, Malick Gakou ak li muy def man nag su ma gisul bu Malick Gakou demandé wul pour nekk maire foofu man Malick Gakou dina ma jaaxal. gis nga ko ak léegi ak résultat bi mu def. bi muy nekk ministère des sports. Mhm. il a fait des résultats. c'est que dañ ko kii noonu rek mais il a fait résultats yu am solo. mais dañ ko nax. Mali voilà dañ ko voilà ko daax daax boo xam c'est pas du tout normal. waaw mais moo ko c'est pas du tout logique. ko def man xam naa sport mais kenn saxalu ko woon su ko waaw kenn saxalu ko mm-hmm. euh, moom avec idée yi mu am. Mm-hmm. Mali Gakou. Mm-hmm. war sincèrement euh, moom dégg Euh, euh, il faut que moom mu demande. ne kenn dina nekk géejewaay. waaw euh, maire fii ci Sénégal. waaw ku dul Malick Gakou. non mais léegi. moom moom moom admettons ko dañ ko naxoon dafa juum wala dañ ko trahir. waaw waaw ndax li ñu tegoon comme deal moom finalement gars yi concrétisé wuñu. waaw si seen côté léegi Malick moom war na wane wanewaat boppam. ne moom war na mën a récupérer géejewaay. c' est Aliou Sall bu fekkee ne defu ko moom warul prétendre naan day nekk candidat d' accord au il faut mu waat boobu te dafa am fu mu jógee dafa jóge ci ci ci AFP la jóge Malick Gakou Malick Gakou dafa ñàkk dafa jotee ak Moustapha Niass waaw mu nekk ministre commerce moo tax mu démissionné foofu ndax dañ ko dàq ci ministère commerce jël Alioune Sarr bi nga xam ne ci AFP la nekkoon ci cadre la ñëw teg ko fa ba pare trahir ko Malick Gakou dañ ko ne pour mu jóge Guédiawaye ñu yóbbu ko région dañ ko ko tegal sur le plat xam nga Malick Gakou bëggoon na fi nekk euh, patron fédération sénégalaise de football. de football waaw. gars yi xeex ko gars yi xeex ko. dañ ko xaw a uma euh, nguur gee ko xeex. waaw euh, Souleymane Ndéné mm-hmm. boobu sax Ablaye Wade boo fi nekk. Mm-hmm. reconnaître na ko man li ma bindoon. Mm-hmm. temps yi may bind. waaw moom Souleymane Ndéné Ndiaye reconnaître na état du Sénégal. Euh, régime bi fi nekkoon ñoom mm-hmm. Wade. Mm-hmm. ñoom ñoo ne non pas question parce que moom AFP la bokkoon. d'accord c'est kii léegi coach essayons essayons mm-hmm. dama leen di wax benn affaire. tey jii xoolal Malick Gakou. bi mu nekk ci nguuru euh, Macky Sall. qu'est-ce mu ne euh, maanaam Sénégal deux mille vingt quatre projet deux mille xam nga deux mille vingt bi lan la woon c'est avant deux mille vingt quatre que Sénégal am ay stade. bi muy nekk foofu. la teg kii bi. Mhm. yoonu yokkute boobu. mu ne ko ah plan baa ngi nii liggéey baa ngi nii lii la ñuy def. ministre bi nga xam ne moom moo ñëw. ñëw euh, ñëw teg loolu. mu ne ko mu ngi euh, mu ngi nii. d'accord dégg euh, poltron c'est un poltron et il manque de courage. surtout d'être pragmatique bon il faut a de l'information. source A aussi qui titre une chose qui intéresse beaucoup les Sénégalais. dafa mhm. mel ni que y a benn manœuvre bu ñuy def au niveau de l'Assemblée nationale parce que des élus appellent leurs collègues par téléphone pour leur demander de s'opposer à une probable levée de l'immunité parlementaire de Mamadou Sall et de Boubacar Biaye. Ce sont les deux députés qui ont été euh, euh cités dans l'affaire de de ces euh, vente de de de, de passeport diplomatique. oui mais mais mooy mooy mooy business boobu loolu bu fekkee ni xam nga euh, xëy na dañ ko wax ci suuf. bu fekkee ni li ah. suuf a ah, wax loolu la. Euh, ci suuf lañ ko wax eh bien nañu xaar di seetaan de toute façon ce sont des gens qui sont concernés ou directement ou indirectement gars yi koy wax en tout cas bokk nañ ci ñi ci ñuy accusé par rapport ak euh, business bi nga xam ne moom doon passeport diplomatique gars yi doon jaay eh ñoom j'espère que comme ñoom ñu ngi leen di soupçonné ci loolu il faut que absolument bu fekkee ni dem nañu ba enquête bi. li ñu war a enquête ci biir assemblée nationale jeex bu fekkee ni loolu confirmé wu na li ñuy xalaat ci ñoom ba pare ñu ne dañuy def ay manœuvres ci suuf. pour génnee pour pour bañ lever seen immunité parlementaire maanaam pour ñu parce que dañuy xalaat ni. peut-être après kaso la ñuy mujjee comme comme comme Bougazelli eh bien serait grave waaye ñun duñ ko nangu Sénégal duñ ko ko di. ba déet xam nga boo dugal nañ ko sax génnewaat ko yaa dégg dugal nañ génnewaat ko à la limite sax xëy na avancement la parce que dugg na euh. yaa ngi dégg après lijjanti nañ ba ba ko euh, ne dafa feebar te mi ngi nii di politique di def lu ko neex loolu yëpp on a compris yi yëpp dina changé man pour man ëllëg parce que Sénégal yi ngi si teg seen bët te dofuñu jënd jàppale te ëllëg dinañu dinañu dinañu dinañu réagir par rapport à ces attitudes honteuses là léegi di di di tout tout tout bas tout ñun suñoo nekku ci nañ taxaw di seetaan mais tant qu'ils sont parce que nag nee nañu juróom benn nit juróom benn député léegi avant trois lañ doon wax mm-hmm. léegi il que y en a Mhm. six députés yoo xam ne sont concernés euh, du a six députés y a six directeurs généraux y a six ministres fii Sénégal y a six euh, musiciens y a machin passeport diplomatique ñoom ñëpp dañ euh, le mandat également qui nous dit que c'est un jour de vérité pour Kilifeu et Simon ci mbiru trafic de de de de de par non pas passeport diplomatique wala visa ñoom aussi passeport diplomatique affaire trafic visa ou passeport mhm. diplomatique politique parce que c'est c'est les ou c'est l'un ou c'est l'autre fu mu gën a yombee rek gars door ko mu daanu récupérer money et puis après ñoom ñuy dund tranquillement pendant que les Sénégalais lambda se morfondent euh, di dajale xaalis pour jënd loolu c'est ça mun ngeen leen dimbali ñu dem euh, bitim réew dem dóori waar mais amu droit di lekk xaalis bi noonu comme ça juste parce que seen tour moo tax je pense que c'est abject comme comportement te loolu bokkul santul yàlla te gis naa ni te gis naa ni te yàgg nañ ko def encore une fois du ay député kese du ay musicien kese du ay euh, euh, euh, ay. Euh, dégg nga maam euh, euh, képp koo xam ne am nga tur fii ci réew mi quand vous êtes tenté d'avoir cette facilité là vous le faites en général c'est très rare ngay gis nit jàppale nit nii rek juste gratuitement parce que mën na ko toppatool visa pour ànd ak moom ndax yóbbu ko bitim réew ndax mu wut lu mu tekkee surtout mais oui mais ni ba ma ma lépp leer comme ça ñëpp xam parce que dem nañ ba à moment donné sax gis nga passeport diplomatique boo demee bitim réew ni bu ñu di ñëw rek jàll mais léegi dañuy sax vérifier ndax passeport bi ndax amul trafic wala demee parce que respecté tuñu passeport diplomatique u Sénégal donc je pense que ni lii amoon na fi nii am na ci nguuru Abdoulaye Wade ça a toujours été le cas ñu bari seen doom yi bi ñuy dem bitim réew yooyu la ñu passeport diplomatique war ñu ko jox n'importe qui dañ ko war a jox nit surtout sur un temps court ba pare ñu vérifier que. nit se pose la question Alioune euh, si l'image du Sénégal n'est pas en jeu. bah si tey day dem ba tilimal deru Sénégal. bah République du Sénégal passeport diplomatique Sénégal mooy am moo ñàkk crédibilité par rapport à ça parce que dañuy ne nee la am na ay yoo xam ne dañu doon dem sax aux États-Unis à moment donné dañu doon ne dañuy vérifier ndax passeport diplomatique yu baax la est-ce que ki ñu passeport benn benn bu leer wala yu demee noonu da leen gis ak seen i ak yu kenn xamul euh, taxaw ci diggu aéroport bi di wane ay passeport diplomatique alors que vraiment il ne le mérite pas parce que ñi ko mérite dëgg da leen ko war a jox bu fekkee ni euh, sëriñ bi dafa feebar wala yu demee noonu wala dafa am ay urgence euh, mënuñu xaar ak yooyu ak pour pour mën ko yóbbu pour am lu ñu ko lijjantil parce que nitu réew mi la ak yu demee noonu mënuñu ko juste pour un délai de temps boo xam ne day dem lijjanti li muy lijjanti dellu si waat mais il beaucoup de gens yoo xam ne ñu ngi ci nguur gi. Mhm. seen i mbokk yi mais seen jànq yi demee am na niveau xam ne corruption ay 1 milliard la am ñoo xam ne corruption francs la boo demee fii léegi ci marché bi am na ay corruption 25 000 francs ak 1000 francs et cetera dañ ko jikkoo parce que c'est un système de ku nekk yaa ngi jéem a seet nooy def pour génn ci Mm. parce que le pays va mal les gens sont fatigués ku nekk yaa ngi jéem a seet un moyen de survie mais bu fekkee ni ça peut être malhonnête des fois donc euh, c'est dommage mais les autres aussi ñi nga xam ne jàppuñu leen ñi ngi fii ci réew mi bàyyil sama loxo yow alors lii moom mooy noppil noppil noppil c'est une <laughs> alors c'est une actualité diplomatiquement décryptée sans corruption Merci. Bah, j'espère que j'ai j'ai bien travaillé. Et tu as aimé mon mon mon mon jeu de mots. Euh, oui c'est c'est vrai non non mais yow professionnel moom c'est kenn waxatu ko. c'est diplomatiquement euh, décrypté. et euh, sans corruption. et sans corruption. et l'on se dit au revoir Aliou Sow s'il te plaît léegi mayal gars yi ñu dem. c'est vrai que c'est vrai que aussi c'est vrai que dama taxe te ma ko xam ne dama. taxe ñu la gën a taxe boo fi taxee tamit da nga fekk ñu la gën a taxe. xew <laughs> dégg nga loolu la mais mais. Eh, noonu la ñuy njaab njaabu baat bi saxoo seetaan gars yi ci bi nii xam nga xale bi dafa tax te kenn xamu ko nuyul sa gars yi ñu dem Euh, Maman Khady Seck yow mi nekk Lac Rose man bëgg naa la euh, Gisèle Goudiaby aussi euh, au FMI à Washington Gisèle on t'aime très très fort et puis ak kii ak exécutif FIFA ngay laal waaw waaw parce que xam nga aussi mm. bu ñu la commencé yow nga nekk nekkoo dara nekk xale bu ndaw jeune xam nga di mm. wax nii rek ñu lay bëgg nii di la apprécier mm. da gën a encourager damay am envie di nekk ci seen wet pour ñu may jox seen xam-xam parce que ay nit xam-xam lañu même bu fekkee ni jigéen la jigéen boobu moo am doole bëri Sénégal bëri na Sénégal mais Aïcha euh, yow encore am nga 10 ans pour tollu foofu waaw ngay def sa kanam bu sew ñu wax ci rubrique people léegi léegi